waaw parfois tamit day loolu mooy cause yi. Mhm. jigéen ñi dañuy nëbb seen ku ñu nekkal seen jukko bañ affaire duñ leen may jàmm. d'accord jigéen duñ may jàmm góor wala góor du may jàmm. top c'est parti mesdames et messieurs très chers internautes euh, bonjour dañ koy defee saa su ne dans Galsen Channel bienvenue. seen émission bi nga xam ne si bi émission thématique la ñu siy waxtaan ak di ci waxtaanal bi nga xam ne bii mooy mag ñi ndaw ñi góor jigéen ñëpp lañ ci waxtaanal waaye tamit nag yoo xam ne si bi ay la mu mu leen di jëriñ saa su ne waaye tamit nee naa bi man dama ci wéet benn yoon dama ci ànd ak l'international ma daal di koy bàyyi mu nuyoog askanu Sénégal. kooku ñooñu la ñuy nuyu ku si nekk seen tur ak seen sant di ko defee comme d'hab comme dab rek à chaque fois luñ koy fas yéene yeggale émission bi di wax ni maa ngi Mama Ndiaye di présenté wu di wax ni bu leen fàtte abonné wu Galsen Channel waaw comme dab tamit bés tàkk ndeysaan merci beaucoup maman Ndiaye ci présentation borom comme dab tamit bés tàkk ah, ah. waaw bien sûr saa su ne ay tamit bés tàkk la yi indi yu bees pour ñu daj si pas euh, euh, N'oubliez surtout pas de commenter, mais surtout de partager, de vous abonner pour, de, pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous avons Galsen Channel, pas avons beaucoup, pas si xaj ba tax li nga xam ne mom lañuy waxtané dina jëriñ ku ne ki nga xamné ci si biir yaa téwlu teewlu waaye tay mama li nga xamné ne mom lañuy waxtané moy thème divorce. divorce gis nañ ni que lëmb na réew mi. Mm-hmm. té gis nañ ni que occidentaux yi moy ci dëkk tuba bi rarement très rarement nga gis ni que divorce am mais sommes en Sénégal en fait Sénégal beaucoup na trop ay divorce tay gis nga ko a xam sa mbokk la sa xarit la wala sa ah. mag sa tay nan nga kaw divorce de nos jours ak approche des fois ñu ngi naan góor nous ne ñu en fait parce que bon je les respecte je respecte les femmes mais nous nañ dañoo dëgër te loolu mën na leen yóbbee loolu wala ñàkk xam ki ñuy ki ñu nekkal. non non là moom je suis pas d'accord parce que. léegi góor ñi ñooy nax jigéen ñi ba takk leen. ba pare indi leen te jigéen tamit du tëb tëb rek dëgg la dañuy du tëb tëb rek sëy ak yow. si nii nii nii. parce que jigéen su la xasee bëgg rek bëgg na la day sëy ak yow. jigéen su la bëggul du sëy ak du la takk parce sëgëm koo mënul génn relation rek ah la la mënul nekkal daal waxatuma la ak sëy nu mu fooree ñu takk ko la kii fii da ngay dëkkam à mm-hmm. mais c'est que góor yi lu ñu lay won si relation wala lu ñu say parents ba mm-hmm. takk la. bis bu ñu la takkee ba nga sëy si jeex na premier jour deuxième jour su passé jeex na lu lay won daal c'est différent. d'accord la maanaam da wax euh, benn kàddu muy nax. Ah. nax. te loolu ah. tey balaa xale góor yi dañuy nax jigéen. gis nañ ko fi. day mm-hmm. gis ku xamante ni wala exemple. yow xale bu jigéen bi leen leen avant relation bu leen ëmb leen bañ parents yi xam wala dara. Mhm. leen profité famille bi takk sëy bi. affaire bi leen dox un mois trois mois. ñu gën a kii kañ la ëmb affaire yi ñëpp ñu ko coow après divorce am fa. Uh-huh. waaw ñu comprendre wu na dañ ñu xam na dañu naan mun a topp kaay dañu topp ba mu sës ne xam ne kii avant muy am jëkkër ci la ëmb. ci la ëmb d' accord maanaam tey comme cas bi nga xam ne si bii indi na ko tuuti internet yi actuellement yéen a ngi suivre comprendre ngeen un peu approche bi muy def mooy ki nga xam ne si bii enceinte na avant ñu koy takk n' est ce pas. Mm-hmm. léegi bi mu demee ba ci biir ñu découvrir que ni. Euh, enceinte grossesse bi. Mhm. jitu na takk bi. après divorce day indi. mais nek na juste yene aspect aspect il nga xamni divorce. loolu la loolu mën a jur divorce n'est-ce pas d' accord merci beaucoup ci loolu waaye tamit dama gis ni que chaque fois yaa ngi naan góor ñi ñooy nax jigéen ñi mais yaakaar naa tey nax ma war na faa mën a am maman. mais da gis sëy léegi nu mu gaawee. Hmm. affaire yooyu noonu xam na ni boobu génnoo leen lu mat. un an wala génnoo leen deux ans ay mois leen génn rek ñu ne dañ leen may. wala leen fekk boobu xale bu jigéen bi am na lu mu séntu si xale bu góor bi ñëw a moom ndax intérêt wala yooyu noonu tam da si joué mais góor yi daal ñoo leen ñoo leen lay mel ne yooyu poussé ñooy lii divorce yi. ñoo leen bàyyiwul si ñu sëy da siy am tamit. d' accord kon góor ñi à chaque fois ñoom ñooy. cause divorce yi daal <laughs> d' accord mi ndeysaan man yàlla bu ma génn sax ñu dóor ma léegi noonu maman nee na góor ñi ñoo posé divorce yi parce que nee nañ li ñu la woon ci relation bi ak boo duggee ci biir gu sëy du doon benn day nekk diamétralement opposé waaye tamit nee naa ko saasu ne saa su ne da ngay dégg mm-hmm. ñu ne la damaa yónni sama jabar mu war a ñëw heure mais ñëwul heure dafa dem ba heure bu ko neex mm-hmm. waaye tamit su ma waxee sama jabar day bañ dafay dëgër bopp Quand des rejoindre jusque ni nga ni la donc est-ce que soit violence là walla ou di saga, wala nax bi nga xamni ci bi wax la nga parce que nous nga touché nga aspect intérêt en fait aspect intérêt touché nga ko. comme mhm. souvent divorce bi mi ngi laal ni nga xamni intérêt relation. d'accord. kon d'accord nga man am na jigéen ñu doxal intérêt pour dugg ci biir néegu sëy ah, ah am na ñuy doxal intérêt ndax dugg si sëy bi nii may nañ ma un million may nañ ma di millions mhm. après def en temps affaire jeex da daal sëy bi daal su duggee jeex na mhm. jeex na d'accord kon ñoom heure bi ren c'est arrangé na nga toog si lal bi rek wékkoo sa kol bu weex d'accord mbaa yow doo mbaa yow mbaa yow du ko def heure ménage après dugg ah, yër bu génnaat ah suñu gisul lu xam la wax dëgg yàlla tamit yàlla tegul kenn mu mënu ndax soo dëggee la gisoo loo xam moom tamit dangay dawaat. mais non amit recherche internaute de Galsen Channel en commentaire répondez pour cette question. nee na da dugg génnaat kon ce qui veut dire ki lu mu la woon si relation bi. nekkul soo duggee si biir sëy bi mu affaire bi mu teg la ay comme ça souffrance métit la dund yaa ko xam. Ah. boobaa tamit da ngay génn. d'accord nga gën a sëy foofu soo deewee yaay perte di. kon yaakaar naa loolu tey moo jur cas de divorce yu bëri yi nga xam ne si biir mooy Sénégal maanaam léegi jigéen ñi mënatuñu nangatuñu muñ parce que yaakaar naa bu njëkk mag ñi li tax ñu daan joxe ci biir néegu sëy mooy dañu daan muñ. Mhm. kon ce qui veut dire que de nos jours xale jigéen ñi amatuñu patience. Mhm. mënatuñu muñ góor bu ci takk. du muñ du muñ c'est différent ndax nit ki su la muñalee muñ muñ ba kañ tamit muñ dafa metti de. d'accord ah muñ daa metti. léeg muñ dafa metti mais ku muñ muñ. loo xaaru du la fa. waaw am na ñu jaral muñal am na góor yi jaral ñu muñalee am na góor yi xamante ne léegi xale yu góor yi ma gis moom. ah dafa métti jaruñoo muñal yéen. kon dèjà kon maa ci loolu dèjà merci beaucoup. mi ngi noonu maman na si bi jaruñoo muñal waaye ba tey rek man am naa ay xam ne si bi ñu ngi may. dafa neexal bi la taxaw. d' accord man day mel ni que dañ la moo. waaw léegi déjà na eh, yëpp yow gisoo ni que tey relation maanaam li li ko war laal du du lu neex du lu bànneex genre demee mais warul nekk ay dóor ak saaga. ah relation moom loolu la relation mooy ku xamante ni dina la wéttali soo wéttee soo amee lu la metti mu lay conseiller si yéen ñaar defal seen vie di waxante ne pas ay saaga ay dóor ay ba relation moom fa lay lépp fa lay ko su amee ay saagante ay waxante chômage soo leen sëyee loolu rek la ñu tàmm. d'accord. donc loolu mën nañu tamit li nga xam ne si bii mooy kaaw divorce ba léegi dañuy rester si thème bi génnuñu benn yoon thème bi wàccuñu ko benn yoon waaye tamit da ciy baax ñuy génn ay exemple comme ça ngeen di gën a mën a xam approche bi nga xam ne si bii mën nañu def ci suñu waxtaan suñu na ko tout à l'heure nee sëy dafa war a nekk bànneex sëy dafa war a nekk loo xam ne si biir luy neex lay doon mais pas dóor wala saaga loolu tamit dama si encouragé donc ñi nga xam ne si biir ñi ngi doxal bànneex seen diggante di dox ci di neex seen i soxna ñi tamit ñuy góorgóorlu pour dox ci di neex donc seen i borom ko waaye ñuy dóor ak saaga yaakaar naa ne loolu war naa mën a ñàkk waaye tam am na jigéen ñoo xam si day jàpp seen dóor seen seen borom kër doo ko ba mën a not ba léegi góor ñoo ñaan baat loolu tamit gis nañ ku goor ki ñëw porter plainte lu xew la sama jabaté mo moom mu ba dam sama loxo bi mais yaakaar na tay goor tamit war na ñoo mëna ñaan baat jigéen moom buy dóor jëkkër moom da du yoon contre na ko tamit goor moom mu mëna mel mel mel su doon màndi ba ñëw ci biir kër gi suturaal ko respecté ko dugal ke naag ci neeg bi waaw kenn bañ la xamé mais pas ay door mais goor bu capricieux nak ko ki réewantu. ah goor c'est normal goor parfois des capricieux. jëlee loolu <laughs> ah xaaral ma commencé capricieux waay merci beaucoup <laughs> non maa ngi jaay <laughs> non waaw sama émission doo ko yàq yàlla xam na ko non lii non non lii non waaw doo na yàlla merci beaucoup à votre cher gentil euh, waxtaan bi ah bàyyiwul benn yoon dañuy wéy rek yéen bi ba tey ci cadre bi nga xam ne si bii moom mooy cadre divorce maman nee na ko ci góor ñi la ba pare ñëw na defendre góor ñi man ma ne ci jigéen ñi la waaye tamit jigéen ñi dañ leen respecté mais quoi qu'on puisse dire ah. responsabilité c'est partagé mo xam ci goor wala ci jigen on est d'accord sur ce point parce que tay jigen ki ni muy dëgëree bop ku goor ki meuna a non mais je me dis que loolu à chaque fois fa la war a départ en fait ci génn ba la ci labat ba mhm. donc ku jigéen ki war na meuna a son sonnom comme tambo boobu nga xam ci waxtane woon nañ ko la fois passée moy ci côté mbaraan parce que mbaraan mi yaakaar naa tey di nga dem di mbaral ba dal ci koo xam ne si waroo ci dal sëy ba du yàgg mu daal di indi divorce je pense que loolu tamit mën a nekk ci aspect mhm. aspect yi créé divorce non donc di ngeen bàyyi mbaraan. ah bi moom si relation la rek. Mm. bokk la dara si kaaw sëy. mais mbaraan koo waratoo mbaraan ba mu takk la. ah boo baax sëy bi du yàgg sëy bi du yàgg. kon looloo waral souvent divorce yi di bëri rek. d' accord looloo waral souvent divorce yi di

sa xaritu jigéen ñi comme ça ñu bàyyi xel que ni góor da nga koy nab nabee góor da koy bay bayal xam nga di ko raay di ko wax yu neex parce que góor loolu bu ko fet bu la nee toogal fi nga toog loolu nit warul rëy en fait nit warul rëy. boo nee toogal da nga war a toog boo nee yaru da nga war a yaru en fait maman. Mm-hmm. léegi loolu lan nga ci souligner. waaw di wax rek. Euh, jigéen ñi moom lu ma la ñu wax léegi mooy bu ñu yàqamti sëy daal parce que mm. sëy du benn jour du ñaari jour mm. nit ki sooy dugg si nit ki da ngay dugg si moom ni yàlla tax kese mm. mu am ak mu ñàkk xoolal lu la doy rek dugg si mais bu si dugg na une semaine deux damay divorce maanaam dugg rek génnaat loo xam ndax yow mi kenn noonu ñu nekkay kenn saxalu la si kaane wala kenn saxalu lem yow la neex yaa ne dangaa décider pour marier kenn forcé wul soo dugg si nit ki daal xalaat leen si bu baax a baax d' accord maman nee na wax na lu am solo booy dugg ci nit da ci xalaat bu baax a baax balaa ngeen ci dugg mooy maanaam nga xam ki nga nekkal dèjà. Mm-hmm. donc balaa ngay dugg ci moom. alors ñu ngi ni ñu ko waxee saa su nekk rek gars yi si parce que maman man xale jigéen dañoo yor boo xam ne si bii méngoowut ak ñoom seen i jikko. Mm-hmm. parce que dañuy gis ni ku góor ki situation bi na baax tuuti le gars il est jantal il est beau il est clean xam nga comme man dama jant dama sexy xam nga dama moo gis na que ne waa ji na lu dul jeex yor na alal bu dul jeex léegi ba tax dañuy nëbb seen jikko bi si biir néegu waa ji vraiment il a montré son mais réellement yorul xaalis mais dafa bëgg boppam rek léegi doo gis ne que souvent ku jigéen ci biir xam ne moom li mu doon séntu mu changé jikko daal di ñaan baat loolu souvent day am maman. waaw day am parfois da ngay gis xale mm-hmm. mu ñor oto wala genre fekk mun naa am bi. moomul bi. Mm-hmm. léegi yow comportement am neex la yow am nañu jikko xam na ni yow nekkoo ko kii lii la gis rek moo la neex si moom lay changer sa jikko waxoo ko dëgg di nëbb. bëgg daal kii xale bu gëm intéressé wu si. maanaam jigéen dañuy nëbbu daal day nëbbu seen ah, am na jigéen ñi def loolu. mais yow doo nëbbu sa jikko moom. <laughs> xaw ma loolu. naka ma bi bi alors bu sànni kii. <laughs> non non. xaw ma loolu waaw maman yow mii nëbbu nëbbu jikko la de ah. xool sa posture vous allez ndax bokk na si ñi nëbbu jikko. di yaru yarul ba bu ñu duggee commencé ragal ñu di naan ah, laay laay laay laay <laughs> laaw. ah kon baax na maman nee na moom dafa yaru léegi tey loolu dina koy souvent di wax su nëbb sa jikko dem ba ci biir néeg ah, après changer jikko waaw waaw parfois tam day loolu mooy indi mhm. nëbb seen ku ñu nekkal seen jikko bañ takk leen du ñu leen may jàmm d'accord jigéen duñu may jàmm gor wala góor du leen may jàmm ah am na góor jigéen yoo xamante ñooy fit fitnaal seen jëkkër daal am na loolu tax gars yi bu ñu rombee ne gars yi duñ teg ataay fii ah ndeysaan dañ leen fitnaal seen kër yi oh, tamit <laughs> am na tam ñu xam ay hmm, ah, pour cent yi mais 100 pour na. Hmm. femme brave lañ bëggum góor bu leen yëpp. yow ci yooyu nga bokk ah, waa. moom <laughs> la ko boppam mais moom daal moom ci ci ci waaw ba tey baax na. façon bi nga sujet façon à vous de juger euh, au niveau des commentaires yéenay xool li nga xam ne si biir moom mooy yéen ngeen daal koy wax merci beaucoup c'était ça c'était votre émission ba tay li nga émission thématique donc Galsen Channel chaque jour ak thème bi nga xamni ci bi mom la indil la fois passée indi woon nañu mbaraan tey ñu waxtaanee li nga xam ne si divorce ëllëg inshallah ñu daal aussi tamit benen thème bi nga xamni ça va inclure les activités sociales au niveau du Sénégal mais aussi au niveau international donc Bataille, tey ci ndaw yi Sénégal Ndiaye alors maman c'est le mot de la fin pour les internautes. ok man maa ngi leen di nuyu ñëpp ku nekk seen Je seen di leen wax ni bu leen fàtte abonné Galsen Channel. Mhm. di leen wax ni partagé leen vidéo yi aimer partout. Mhm. di non maman ni nga waxee bàyyi neex na waxaatal bàyyi. non dina ko Merci beaucoup, amis très chers internautes de Galsen Channel. C'était ça avec DJ Johnny, l'international musicien avec Maman Ndiaye, l'international woman. Ciao, à la prochaine.